faadilu mooy fadlul amim turam wa na xarnu bi allahu sol fadlil jox ngeneel de fileem faadilu mooy fadlul amim turam wa na xarnu bi sëriñ falliloo mooy doomi samsun wa xamar mbàkke bu soobee duñ ko jar moo namp yaari meeni ngor mooy bamba tey ci xarnu bi sidit yi baayam naat moo doon mbooti xarnu bi sëriñ falliloo mooy noobalub lislaam fi nun mboolem sëriif yi moo ci gën donay Useynu wal Hasan may xaadamam ci xarnu bi sëriñ falliloo dem na ba makkam jullikaay aj na siyaare ngeen ji baay te ëddiwul alal dinu jaay nawleem amul ci xarnu bi sëriñ falliloo taalifay baay yamay wayam moo doon nu du si xam-xamam moo naan ci géejug xikamam ci romb doy na xarnu bi sëriñ falliloo yàlla na am li muy mébét ci nun te nu am li nuy mébét ci moom te yàlla na ami sëdi yu gën a gëm waa xarnu bi sëriñ falliloo aljuma tey kaso rajab la tàkku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 ini ya abdullahi moom la isa waxoon di mbim njureel garaw na buusa lu bam bam mën a waxte mi muru moo mën def keroog sëriñ falilu mën a woor amul lor bi kax taway naa akramul xalaaxu fekkeeb cër la xadimi li ba la waatu xadimal xadimi yéen murit alaaji fàllulaay yéen murit alaaji fàllulaay santaat na leen ngir joxe ngeen li laay leen ngir joxe ngeen li laayi ngir joxe ngeen ay junni ngir jumaa ji ngir yàlla ak Cheikh Bamba ak alaaji ku joxe ngir yàlla ci yoonu yàlla yowmal xiyaam buur yàlla ful ko fay la Cheikh Bamba moo kul ma jox benn dërëm ma ful ko junni boole ko samay ngërëm waa jox jox junni ma ful ko million duniyaa wa uxraa doo du tàggoog ay borom du gudd yàlla bi ma tiim xam ne billaahi wallaahi tàllaahi damaa amoon soxla ci sëriñ Xaadim Gueye am na ku ma ko yóbbante ci tàkkusaan ma ne ko waxtu ma ko mën a gis mu ne ma jàpp naa ne boo fa xëyee di ko gis bi may jëm si fii xaw ma woon ne sax mi ngi fiy jàng dégg naa rajo bi ab diir ci buntu kër bi te xaw ma ne mooma du ma duggee ba seen ko nag laa door xam ne mooma ndax liñ naan lu ne fang kenn du ko jeex bi may ñëw dama doon ñëw ngir ak si ci Sëriñ Xaalim Géey mii ndax dañu wax ne bukki bukki lan mooy dëgg mu ne la ñëpp wax te barab benn nekkoon te tant ba ñu bari yëkkati nañ fa seen kàddu jëme ko ci sëriñ xaadim gi nekkul nag lu ñu fartaatu lu mu def la waaye yal na ko fi yàlla saxal ci barkeb sëriñ Touba barkeb sëñ Fallou sama turandoo barkeb yi Baara ba ci sëñ Moustapha mi barki sëriñ Touba Alaaji Baara déglu leen ma alaji baara jiiti na ma timis jiiti na ma timis ci kër gi nekk ca kees foofu ñuy wax angal sëñ Fàllu alaji baara jiiti na ma fa timis maa ngi fàttaliku complète ba mu soloon xaftaan bu sokolaa pantre ba mu nekkoon maa moom képp noo ci jullee timis moo ma jiiti timis moo tax keroog bi maam morom sëñ Mutulaa di teg xeer bii di université bi ci ndam laaki sëriñ Fallilo jël nga ndam li mama wa bu soo ko jur la sama aw ko jur muy jaaratulaay sëriñ Fallilo sëriñ Fallilo dal nga ndam li mam oo ko jur mooy jaaratullah sëriñ Fallu ndajewaat di baawaatam sëriñ baayam ndam ma addonu batin ba Fallu gani lu yàlla la ndaja di baayam Fallu man baayam ndam ma addonu batin ba leer sa billah Mbakke ndaw leer ndaw leer rek soxna awa soso ci leer la ilaha illallah ya rasulullah ndaw leer ndaw leer soxna awa soso jole ku soobe Mbakke jant la far leer awo bu soo Marema jaraw Marema jaraw ma ukhra jaratullah bala azaler ga ga jole soobe Mbakke jant la far leer

sorori makayo sorori tayba ya akhbati bay muqaddas absatu ba غرت عملك أكمل قدنا جعلت الله يا سرنا غير الضيوت عملك أكمل قدنا جعلت الله رأيو جنل وقت باسدم بيوتنا قدنا لا جبال xolli fabillah rayu ngeen yal dama yor na ko tey jii waaw bilaay sëriñ Fadilu xolli fabillah waaw bilaay خلي فبالله خليفة بالله ما خليفة بالله شريف لله ما يخليف بالله léegi nag gaañ yi yéen ñëpp dama bëggoon sëñ Fallou mii sama ginnaaw ah. ñu warlul ko àddiya ndax ñu ñi fi nekk li ay jàngkat xasida yépp mooy suñu kilifa te ñetti bayiti xasida yi mu fi yëkkati bu mu fekkoon sa kër defal la ko àddiya war sa digg moom ma bëgg ñu sarax ma ay ñaari téeméer ba ma am juróomi junni rek ma jox ko jërëjëf sëñ Abdul Karim Moussa jërëjëf gaa yi ku man rek dama jox ñaari téeméer sarax ma ko rek ma dajale ba am juróomi junni jox sëñ Fallou te eh, gaa yi jóg leen eh eh Pape Ndiaye leen àll jógul jóg leen waaye sama gaa yi bàyyiwuma leen kat. damay mag la waaye yóbbaale Xafoor. Moussa jógal jarbaat. ñëpp ñëw. waaw jël. na bari. sëñ Fall am teel. waaw yi sax laa jiital ñëpp na ñëw. ñoom tey jii xam naa ni seen mbir jërëjëf ja xam naa ni seen mbir jërëjëf. léegi seen mbir dox na ñoom ñoom. waaw ah, xam naa ko. law bi ñëwal ñëwal boo dee àbb sax àbbal ta fay ñëw leen ñeme nga maa bañ jox jërëjëf amin amin jërëjëf sëñ Xaadim jërë ngeen jëfitam yéen borom mañata fan yi dégluwaat seeni kaset ñépp nañ nu may dama ne jërëjëf sëñ Xaadim jërë ngeen jëfati yéen nag su wóolu woon béjjënam du ko xesanoo jàngkat yi dañoo ragalante woon ndax lu ñu yaakaaroon ne dinañ ko def ci seen diggante comme bëri làmb yi waaye demeetul noona li ma leen wax léegi rek bi may dégg kàddu gi ci mbedd mi xaw ma woon ne sax mooma waaye bi ma duggee nag xam ne mooma su ma ko ëmbaloon dara damay yolleeku ndànk génnaat man ñii sama awkat fekk na ak jàngkat war a jàng fi barab ci ndakaaru ñu ànd ak jàngkat boobu na ko doo ko nuyu ngir defe ne daa ca loxo ba dara loo xëy bu ko nuyuwaalee lor dab ko li mu wax léegi sëñ Fallou lor dem na moo nekk ci sunu biir bi may wax léegi dama ko waxaat ne ko di nga ma jox sa àddiyeey bopp ndax su ma ko ñemee rek xasida yi tax ñemewu ko ngir sama bàyyi néewu ma ko ngir sama ndey xasida yi rekk tax ba ñemee téye àddiya ndax Sëriñ Tuubaa nee na àddiya jooni jéeyi loxo bu tàllal nar koo nangu sama loxo bu róonwul rek la booba day damm àddiya kenn attunu kut sëñ bam waaye nag kuy jàng xasida moom luñ la jox jëlal xasida yi attan na lépp kon sëñ Xaadim ñoo lay sant di la gërëm yal na yàlla nangu sa àddiya ak sa yéene nangu àddiya yi ñi fi nekk ñépp rek ci barkeb sëñ Tuubaa li ma la waxoon nag dem nga ko mooy àddiya jëm si noonu li ci des nag mooy nu ñaaroo te barkeb sëriñ Tuubaa li ma yéene sama jëmm laa yéene am na sëriñ Abdou Khari moom sëñ Mbàkke Madina ay doomi ndey lañu loo ne sëñ Fallu mi amoon na ñaari mbenn mbenn baara ak mbenn Fallu mbenn baara laa daan jàngal ci Kazu Rajab gi ba sëñ Moodu Buso waxoon na ne màggalu Kazu Rajab gi lu ci waay dafa dina góor góorlu ci bëccëg bi ndax bu ngoonee mbenn jël nit ñi dama wuma ko boobu waaye sama jëmm ji taxoon lu ci waay di def na ko def ci bëccëg bi ndax bu ngoonee rek mbenn jël nit ñi diggante kër Cheikh Ahmad ak jumaa ji kenn mosu fee xëy te yàlla nga ko jaarale sama jëmu ji loolu nag euh, moo waral lu may def ci yéen na ñeme ko mooy li ma la wax léegi li ma yéene sa bopp laa yéen laa la yéene soxna mbenn moomee ak sëriñ Abdou Xari xari jënga dégg ak soxna Aminta Lo mën naa leen juróom ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak bàyyi sëriñ Abdou Xari moom dafa ma a bind benn téere di ma ko jox ne bala ma koo jox kat dama lay wax sart yi ma ne ko amu ah, ne ma bu fekkee di nga def kenn lu bon doo ko mën a takk ma ne ko indi <coughs> indi man duma def kenn lu bon ba ma ko ak léegi mosuma jéem ci nit dara lu bon waaye nag lépp lu waay jéem ci man ci lu bon du si maa ngi koy sant yàlla nag bu baax di leen sant bu baax ndax sëñ Moustapha mi moo nu yëkkati waaye sëñ Xaadim mii ni ñu ko waxee léegi yal ma lu ma ko woyaanu ko waaye dama dégg ñu sant ko ci baas bi cant yu leer nañ ñoo xam ne ña ko doon sant ñëpp dafa ñëw. bi nu jógee nag nu jaar far fekk la fi fekk gi nu la fekk nag sant nañ ci yàlla bu baax di la ñaanal nag ci barkeb sëñ Tuubaa xasida yi lii dolli ko ndax sëñ Moussa mii tey di Alaaji Baara day bari waa na ndaje nu daje bala noo tàggoo daf ma naan ñaanal ma ci xasida yi gis naa keroog bi ñuy denc soxnaar si njaay sa njaay di aawam ba demee bay dëgmal armée ci barmal ba maa la wax jàngal ngay jàng ja bëgg ku sëñ Moustapha mi bëgg xasida yi tax woy woo wax yéen a ko ànd keroog ba nit ñu denc ci soxna si ku bëgg xasida yi la ba tax na kon nag noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kii nu àndal ñaare bu sëñ Ibrahima Mbacke génnee kër googe ca xombal ba ñaamar ñooy bokk oto bi muy sëriñ Mor Njaay mii bi mu yëg na damay ñëw ci màggal gi nu ànd kon nag noo ngi sant jarul guddal waaw bu nu jógee ñaaroo rek dinaa la wax li ma lay wax te def ga nag mooy gën ndax li ma lay sant rek maa la ci nar a jiitu kon lu baax la jërëjëf jërë ngeen jëf dafa am lu may sedd ci sëñ Xaadim nii ndax nit ku baax soo gisee muy def lu baax da koy wax te it borom dimbalul suñ boroom la ndax sëñ Ibrahima Mbàkke ñaamar day ku ko xamul it dégg nga ko ci njabootuk sëñ Mbàkke Madina waaye dama takk bés bii sëñ Baara Sylla di def waxtu wu xaadim ñaa jógee ci baas bi day ñëw làmb àddiyaam lu mu teel teel balaa dem ñëw nuyu sëñ Ibra ba sëñ Ibra ràññee ko lool lool lool lool lool nag ndimbalal suñ boroom la ndax xasida yi yéen ñii ku ci jox nit ab cër fii mu nekk sag baaxa ndax xasida yi moom mooy defare fii mu nekk day wax dëgg yàlla su ko neexoon mën naa bañ a tàllal am mbàkke mbàkke loxo mook yow mii fii mu ne ndax xasida yi leen defar te xasida yi moom kuñ defar dootoo yàqu sëñ xaadim mii nag man dañuy waxtaan toujours waaye danga may ne xaadim géey ku amub yar la ku amub yar la ku ami teggin la ndax fii mu ne day yàlla eggloo na ko foo xam ne fii man mii bu ko neexan bu ma rombee du ma nuyu waaye du ma romb mukk du ma nuyoo nuyoo it loxoom neen kon sëñ xaadim jërëjëf yàlla na la yàlla yàggal yàlla la yàlla yàlla nga jànq si yi ba màggat ba yaay ñi ñuy wax ne xaadim mënatut a jàng ni sëñ Fallou mii teyit teyit du ngeen ñàkk mën a jàng waaw sëñ Mbacke Madina dafa mas am lu mu mas waaw sëñ Mbacke Madina dañ koo mas a béyal gerte gu nungu mu ñëw ñu déqi ca genn gooñ wéttu ko muy téeméeri doom mu ne ah ndimbalal yàlla de fii la tàmbalee waaye mayu yàlla moom kenn xamut fu muy yem yéen ñi nag mayu yàlla ngeen yem xamul leen fu muy yem jërë ngeen jëf te mu yaatu wanaat wanaat ngeen nu référence ndax ñun nag ci yéen rek lañuy roy cër bii ñu am li ko waral mooy lii ngeen bëgg xasida yi ñun leen dann rek ndax nit lu mu bëggul du ko du ko du ko du gis nit mu du ko def mu du ko roy te lii ngeen lii ngeen nekk muy ngërëmal sëñ tubaa ñu leen ci roy ba ñeneen di ci di ñu ci roy ngërëmal sëñ tubaa la ñun am na mbégte mu baax gën na noo sant sañ tubaa ndax yéen ñaar ñi ay exemplaire ngeen ci yoonu murit barke Seexul Xaddim amul kenn koo xamante ni yaa ngi jàng xasida te bëggoo doon Fallou Ndiaye wala bëggoo doon Xaadim Gueye amul kon nag bu ngeen melee nii wannu dars bi ñu jàng ko ñoo ngi ñaan sunu borom yàggal seen wéral leen fi lool sama nijaay Modou day wax ni nungu bu jëree nungu wàcc na lépp seen ci yéen la sama nijaay Xaadim nag moom day kenn ndax nit di nit di ko di ko di di nga di xemam la muy def te doo ko ñemee waaye moom ñépp a ko ñemee ndax yaatuwaayam ak bëggam lu baax amu ci kenn koo xamante ni yaa ngi jàng xasida te te defoo ko référence ndax moom xasida yi ndëndum buur la du ko tëggal baadoo la kon ñoo ngi ñaan ci daraja yi xasida yi suñu borom yàggal leen fi sama nijaay fàllu yàlla wéral leen bu baax ñaanal Serigne Xaadim mii kii nga xamante ni mooy nijaayam di suñu wëlëre moom it yàlla bàyyi ko fi yàlla defal kon tawfiix ak taysir